ay Sénégalais lañ ci liggéey la ñuy woote mais dañ dul nangu dañ ñuy dëgër piir nangu désormais xam duñ nangu duñ nangu nga ñu jëlee fenn te waxoo dara moom dafa waxoon dafa am programme mu recasement Sandaga bii am na annexe bu ñu koy dafa ne dañ mu ngi ko am un programme boo xam ne mille huit cent cantines la quatre ans six cent places nanguñu faa dem nañu wax nañ dem

dégg nga waaw léegi nag kon duñ leen mais Aliou Aliou Ndoye sànq ci point de presse nee ci kaw immeuble yi la centre commercial dañu taxaw ngir. Euh, c'est pas vrai non loolu mënu nekk mënu nekk mënu nekk mënu nekk mënu nekk c'est très simple police du police ñu wax ça va être très simple je suis Souleymane Alioune Diallo de Dakar Plateau je suis fils de Dakar Plateau Nous sommes outrés de cette situation au centre de Dakar. Que ce soit les ambulants, que ce soit les autorités, je pense que ce n'est pas la première fois qu'une situation de crise avec les marchands ambulants se déroule. Mané, est la situation marchands ambulants a mairie si projet et programme le Dakar Plateau est envahi D'où nos voix sont envahies je pense que c'est aux autorités de ce pays aux autorités centrales aux autorités locales avec les autorités de trouver une solution définitive à ce ce problème ça fait maintenant plus de 10 ans Chaque fois, c'est une crise entre les marchands ambulants, la mairie et sur nous les populations qui en souffrent. Suñu buntu kër yi mënatuñ si xamuñu si ñoom ñaar kan moo si am dëgg xamuñu kan moo si am raison maintenant c'est à l'autorité centrale de prendre ses responsabilités par rapport à cette situation ñun Dakar Plateau dundatuñu amatuñu cadre de vie amatuñu environnement mënuñu ne ambulants yi ñoo am dëgg mënuñu ne mairie moo am dëgg mais l'autorité doit rester à l'état, état à l'état de prendre ses responsabilités ça ne peut plus continuer comme ça. léegi yéen ñi fi nekk tamit yéen ñi fi nekk nekk ay responsable am est ce que boo leen luyee magasin yi nga xamante ne ñoo nekk ci seen suufu kër est ce que mën ngeen a tere tamit ambulants yi laal fi nga xamante ne mooy sëw. loolu tamit amoo leen ci responsabilité de part. ma wax naa la cadre de vie louer sa buntu kër ne veut pas dire envahissement wala occupation anarchique loolu lañ fa am na maire bu fi nekkoon bi mu jëlee ay responsabilités par rapport ak avenue Ponty bii xamoon nañu suite bi si am léegi lan moo si am mooy ni que ñun dañu am droit dund dund décemment fi ñu dëkk neewuñu on est contre les marchands ambulants il faut que encore que l'État prend ses responsabilités par rapport à cette situation c'est pas nous les agents de, l'État c'est pas nous qui vont nous substituer à l'État l'État a plus d'informations et d'informations et de renseignements sur cette question notre talk tous les partis les riverains la mairie et les marchands ambulants ensemble nous trouvons une solution ça ne peut plus continuer comme ça hmm. un cadre de vie décent nit yi di dox ci trottoir cadre de vie normale comme des bonnes personnes yuy dund seen biir kër yi. loolu rek lañ soxla ah, marchand ambulant jóg. question de cette vie-là, ne dama ne dama ne. ñu bëgg a toog ci ci traitement. dama ne dama ma déclaration ma déclaration elle est très claire je dis les marchands ambulants qui font partie intégrante de notre société am na fi ñoo xam ne fii la ñu yeewoo fii la ñu dund fii la ñu il benn instant bo xamné dañ leen facilité pour des questions électoralistes tay bu mu ñu politiser ce dossier que ne soit pas politisé man je suis contre la politisation de ce dossier c'est la raison pour laquelle j'appelle j'appelle l'État du Sénégal l'État décentralisé les collectivités locales la mairie les populations les riverains et les marchands ambulants ensemble ñu tok ligue. mané centre commercial mu ngi nous ñu ubbi kenn demu fa néwuma dama ne nañu toog ak marchand ambulants yi pour wax waxu dëgg occupation anarchique voie publique nous ñu xool nan lañ koy régler et lors du collectivité locale rek moo koy def y compris il y a des parties prenantes que toutes les parties prenantes s'assoient et trouver une solution définitive nous les populations nous en sommes victimes et c'est ce qu'on dit merci maintenant li ma bëgg ñu xam nous ñun xañu ñu benn cadre de vie kenn les marchés ambulants ñoom Nous, di wax nii rek marchands

le maire day politique parce que li mu mais xam nga muy politique parce que dama ne dafa am projet mu proposé ñu ko depuis quatre ans toog di ko xaar mu ak marché bi nekk suñu ginnaaw am na annexe bu mu ci def nee euh, ko def plein immeuble pour les marchands ambulants mais projet yu dul pare ba pare nga toogoo bon jour da ngay dëgër biir nit ñi. mais nee alalam ban xaalisam xaalisu maire bi non.

dimbali ñu. waaw parce que lii moo tax ñu fol day politique. waaw ñun ñu ñu soog a Ousmane Sonko. waaw wotaluñ ko woon nag dañ ko wotalul woon waaye ñoom la fi yàlla teg. kon nag ñu ngi leen woon ñu dimbali nit ñi. waaw marchand bi la ñu dimbali leen mooy wax ji. d'accord merci beaucoup euh, cher internaute ba tey rek dañuy woy gis nañu kàddu. ñoom ñii di wax nii. dañoo judd fekk fi marché waaw mi ngoog ah affaire yi vraiment jaxasoo pëccëxoo lañu fi nemmeeku jëmale ci ñi nga xam ne nag ñooy agent euh, yi nekk euh, waaye tamit ba tey nabu ñi dëkk ci bi la gox tamit ñoom ci ni ñuy waxee dafa mel ni dañoo bëgg marché bi jóge fi ñoom nag marché ambulant yi nee nañ pare nañu ngir tayale seen bakkan ni duñu fi jógee lii nag di mbir moo xam ne mbir mu doyo waar la waxtu wi ci Ndakaaru li ko wër nabu jëlama